mbokki topp xibaar 24 TV ñu ngi ñëwaat seen beneen jotaay ànd ak euh, Ibrahima Sarr Ibrahima Sarr nag di un Sénégalais de la diaspora nekk si Mauritanie jiite sax nag convoi bi nga xamante ni moom mooy ñëw Sénégal si événement religieux yi su mboo dem këru diine chaque fois bi nga xamante ni am na xew-xew doon événement bu mag doon ay convoi yoo xamante ne c'est des centaines de voitures doon ay talibé suñu mboolem tarixa nekk foofu si biir Sénégal rawat na màggal Touba ca kanam moom mooy coordinateur am en euh, Mauritanie mais également na Safinatul Aman bi nekk foofu moom moo ko jiite nekkit coordinateur gëm sa bopp Bougane Dany Gueye euh, ca Mauritanie casquette yi macha allah tubarkalla ba léegi boobu da nga koy bàyyi mu nuyoog mbokk internet yi Ibrahima ñu lay nuyu. Euh, Cheikh Babacar ñu ngi lay nuyu baax di la siyaare di am mbégte pour ñëw fii ci xibaar bi. Eh, site bi nga xam ne suñu site bopp la ñëpp di ko teewlu rawatina nag Mauritanie ñu ngi lay béggee fu ñu toll di la ziare ci turu waa yëpp comme ni nga ko waxee eh, daayira Safinatul Amaan man maay coordonnateur bi nga xam ne moom moo concerné lu jëm ci mbirum relation fii ci Sénégal ak Mauritanie convoi bi nga xam ne mooy ñëw ñuy dox ci diggante administration bi maanaam kilifa yi. li euh, nga xam ne ñooy kilifa yi kilifay administration yi bu ñu ko waxee ak euh, kilifay diine yi euh, Touba ci kanam itam yàlla dogal ñooy coordonnateur bu nekk foofu bu mm, dee ci wàllu li nga xam ne itam mooy diggante Sénégal ak Mauritanie jiite fi benn association bu ñuy wax mouvement bu ñuy wax Emrasmu comme ni nga ko waxee mooy rataxal diggante Sénégal ak ci diggante ci aada yi nga xam ne moo fi amoon ak yëpp yàlla dogal ñu bokk ak naar yi ñëpp ñu ànd ci di liggéey. Ah. bi ci des itam mooy ni nga ko waxee rek. Euh, bëri na waaye alhamdulilah. Euh, euh, taxawaay si wàllu sénégalais yi nekk Mauritanie macha allah diggante bi tax na wàllu diplomatie mën nañu jàpp ni dëkk yi am ñu benn jafe-jafe. waaw fi ma wax yow moom diplomate bi moom alhamdulilah nit ñi seen xel dal na ci bu baax a baax rawatina nag diggante bi nga xamee ne nekkoon na loo xam ne lu yàgg la. ni ñu koy waxee toujours rek maanaam Sénégal la Mauritanie loolu rek la loolu rek la mën a demee ndax da boo boo ko seetloo dañoo jaxasoo lool. Hmm. amul benn doomu aadama boo xam ne di nga jógee Sénégal gi di dem Mauritanie boo demee amu foo mën a wàcc. da ngay dem fekk sa bàjjan wala sa yaay kon xam nga loolu am na lu muy hmm. benn Mauritanien boo xam ne itam di nga jógee Mauritanie di ñëw fii ci Sénégal te foo kër goo dugg. benn peuple bi la. benn peuple bi la. Ah, euh, sant sant Fall. Diop lépp a alors boo xamee loolu nag xam ne loolu kon lu yàgg la dañoo ñëw fekk ko ci. Hmm. ñu jàpp ne ñun amuñu droit rek lu passé diggante boobu nga xam ne moom la mag ñi tabaxoon ba mu yegg si fii nañ ko dox continuer ko rafetal ko rataxal ko ba diplomate bi li ci am solo ñoom bu ñu gisee li nga xam ne peuple bi moom la ñuy taxawee daañu leen gën a jàppale waaye bu ñu bàyyi diplomate bi noonu rek te mën na am réalité yi nga xam ne ñoo am ci terrain yi diplomate du ko xam parce que ñoom ci ñu nekk yor seen signature yu demee loolu ak li xew sur le terrain du mën a duñ ko xam yéen gis ngeen ni Sénégal yi seen nekkin foofu macha allah ñu ngi yëngu si wàllu ouvrier yi maçon menuiserie jigéen ñi ngi góorgóorlu nappkat yi macha allah Sénégal yi dafa mel ne ñi ngi nekk seen foofu rek waaw fi mu toll nii moom wax dëgg yàlla yàggoon na sax waaye dafa yokk nag bu ñu waxante li am mooy diggante président bi nga xam ne moo fi nekk mooy Cheikh Mamadou Ghazouani bi fi nekkee ba léegi nag euh, nit ñi gën nañu gën nañu am jàmm jàmm amoon na ndax ko xamoon ca mu tënnu yëgg-yàgg léegi di nga xam ne jàmm am na bu baax a baax waaye boo ko xoolee ci diggante bi moom dafa gën a dafa gën a dal xel dafa gën a dalxel mooy nit ñi seen jàmm am na yoo fa daa gis ay séjours yi nga xam ne sax dañ ko daan laaj nit ñi yooyu yëpp boo xoolee bi fi président nekkee ba léegi vraiment yooyu yëpp teggi na ko. Mm-hmm. encore bëri na yeneen taxar yoo xam ne mu ngi gën a am muy diggante Sénégal ak Mauritanie ci pont bi diggante Rosso te ku ne xam ne jafe yu bëri côté boobu lu ëpp moom du am. waaye gis ko léegi ba ci jàngoro ji nga xam ne moo fi jaar rek. Euh, Covid bi boo xoolee dëkk yëpp dañoo tëj seen frontière mais diggante Sénégal ak Mauritanie donte tëjul nañu ci commencement bi mais am na ay accords yu ñu def. ci diggante ñaari commissariat yi ñu leen di nuyu à passage commissaire Moussa Ndiaye ak euh, commissaire bi nekk Rosso Mauritanie dañ cee dox ak monsieur le ambassadeur Moustapha Ndiour ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ci diplomate boobu dox nañ ci ba nit ñi léegi daanaka ay autorisation la ñuy demee autorisation boo ñëwee ñu defal autorisation wane na jaar nga fi ñu bàyyi li ngeen dem te loolu yombul mu jëkk te loolu li ko waral mooy dem na ñoom xam ne Sénégal ak Mauritanie mënuñoo ñàkk dem ak dikk loolu moo muntu muntu nekk mm-hmm. loolu yëpp moo sabab diggante bi tam alhamdulilah rabbil alamin voilà euh, rataxal boobu bokk na si tamit nekkinu sénégal yi nekk foofu mu gën ñoŋ yéen tey bu kenn feebaree nu ngeen taxaw bu ngeen bëggee indi benn koor koo xam ne bakkanam dafa wàññeeku nu ngeen di fexee ba def ko jàppale ko. waaw loolu dafa am ay fànn yu ci bëree bëri euh, yoo xam ne nii kuréel yi fay taxaw loolu dafa bëri mm-hmm. loolu boo xoolee tey euh, bu dee ci yoon wi da xool euh, bu dee ab taalibe la léegi dem ci kër Sëriñ Tuubaa gi li ci ëpp wala bu dee ab Sénégal la sax dañuy dem ci kër Sëriñ ko ki nga xam ne moo jiite ñu ngi fi jaare di nuyu Sëriñ Sidi Mbàkke moom Sëriñ Murtala mi nga xam moom la fa sëriñ bi teg mu nekkal ko fa bu passé wala association yi dañoo bëri foofu waaye am na benn benn kuréel mooy fédération bu ñuy wax FACSIM Alaaji Asan Ngay jiite ko ñu ngi koy nuyu à passage euh, ñoom itam dañuy def ci social ci loolu bëri na bëri na association ak i moment ba ñun yi bu dara amee bu ko ñëpp yëgee rek dañuy jóg ñuy annoncé ko ci groupe whatsapp bi ñuy jóg jóg seen tànk am na ñoo xam ne ñoo koy taxaw ba euh, daanaka bala ko ambassadeur yéeg sax li ci ëpp dina fekk boobu nit ñi dajale nañu seenum koom ba war koo faj benn wala ñu war koo euh, jëlee Sénégal Mauritanie indi ko Sénégal la ca war lépp ñu ñu def ko bu ñu demee nag ba xañ na am na lu ci mën a të ñu doon def ay jéego nag dem ci dem ci ambassadeur mu xool moom côté bi nga xam ne moom la ko yoon may mu taxaw ci bu dee intervention bu gën a mën a kawe mu def ko loolu daal mooy li nga xam ne moom la nit ñi dundee foofu waaye wax yàlla euh, sénégalais yi nekk moom Mauritanie moom actuellement ñu ngi dund ci dund boo xam ne bu lébat la wax dëgg yàlla. beneen problème bokk na ci wàllu napp ay jafe-jafe partout rek est-ce di ngeen dem tamit di dox pour leen leen seen gaal yooyu parce que dañuy téye seen gaal yi ak seen machine te dafa cher ah. waaw day am. su dee am su dee am ci diggante Sénégal ak Mauritanie waaye comme ni nga ko waxee rek xam nga ñi ay nit bu ñu bokkee gën a kër. faaw du ñàkk léeg-léeg ñuy jàppan ñu ñuy jàppante xuloo xeex c'est comme ñun ñu bokk suñu kër yi sax ak suñu waajur yi ñooy bokk di wax ma nag euh, dëkk boo xam ne ni dañu ne ñaari dëkk la mais dañoo am lu ñuy lu ñuy wut. Euh, li ci am solo mooy Sénégal mu ku ne am na loo soxla sa morom ñun suñu intervention boo gisee toujours dañuy def intervention fii ci Sénégal ci ñi nga xam ne mu yi nekk fii ndax fii mu dañ fi am ay gileem am fi ay commerce am fi ay yooyu yëpp dañ ciy dox te ñu am ci ay jafe-jafe Sénégal bi nga xam ne itam daa nekk Mauritanie am jafe mel noonu ci gaal yi ak yu noonu yëpp dañuy comme intervention bi ñu ciy def itam du lu ñuy mën di génn di ko wax di ko di wax ne kii moo tooñ wala yu deme noonu déedéet li ñuy war moom ñu jaar ci suuf waxtaan Euh, te ni mu gën a neexee mooy Mauritaniens bu ñëwee ànd ak ñun ci intervention sénégalais day gën a dal xel. sénégalais itam bu ñu jógee ànd ak Mauritaniens ñëw ñëw fii ci Sénégal def intervention ci Mauritaniens day gën a day gën a dal xel. Mhm. bu ñu ñëwee si beneen fànn yaa ngi koy wax si commencement bi Touba sa kanam muy kuréel gu am solo li taxaw yoonu murit si fànn yu bare si wàllu infrastructure. taalibe yi di si jàpp bu baax si mbooleem gox si biir Sénégal ak si àdduna wërngal këpp Mauritanie yaakaar naa ni taaliba ya fa nekk tax taxawaay am na solo. waaw loolu moom alhamdulilah rabbi ñu ngi sant yàlla baax a baax ndax xam nga ne Mauritanie mm, Touba Ca Kanam dafa am nu mu tëddee boo xoolee kuréel yi euh, Afrique ku ñu wax sëñ Xaadim Jaan moo ko jiite waaye boo xoolee tey Afrique euh, Mauritanie bu jëlut euh, ci cinq premiers la bokk. ci cadre versement yi nga xam ne mooy ñëw Touba ci Touba Ca Kanam boo xoolee fan yi passé rek matul ñaari semaine. joxe nañu deux millions huit cent et quelques mille damay bañ a jum chiffre bi waaw loolu suñu loxo la jaar am na trésorier bu ko gérer waaye yooyu yëpp bu pare nag euh, dañ koy dañ koy saytu am na ko toppatoo ba lépp ñu teg suñu loxo ñu ànd dem jëble ji mm-hmm. dem nañ ci seize ba ba jëble ko ci deux millions ginnaaw màggal gi rek yàggul dara matul sax di jours mm-hmm. euh, te am na yeneen versement yu ko jiitu woon ci at mi am na yeneen yu ko jiitu kon donc nga xam ne loolu yombul fu mu génnee ci euh, lu jëm ci yoon wi fu muy génne ci dëkk ci lu toll noonu daanaka fu mu toll jege na cinq millions quelque wala six million ci loo xam ne nii jamonoy corona bi ñu toll kon xam nga loolu euh, Mauritanie moom am na ci part bu am solo waaye li ko waral mooy taalibe Sëñ Tuubaa yi dañoo bëri Mauritanie mm-hmm. te it Mauritanie daa doon dëkk boo xam ne nii Sëñ Tuubaa yàlla da ko faa nangul ci ñëpp boo demee ci naar yi da ngay yaakaar ne ñoo gën a bëgg Sëñ Tuubaa taalibe fa nekk ndam moom dama ko jëlalee taalibe lañu comme comme yëpp loolu moo sabab euh, bu amee ak jub rek am ak saytu am ak euh, farlu taalibe yi moom joxe moom jafewu leen xanaa kay fañ koy teg rek mooy moom parfois la ñuy def sikki sàkk waaye jëmi joxe moom taalibe Sëñ Tuubaa moom jafewu leen ñu ngi sant yàlla bu baax. Mm-hmm. voilà Mauritanie ni ngeen fexe ba coordonner toutes les régions parce que dafa mel ni dëkk boo xam ne dafa xaw a yaatu gox goxaan yi doon xaw a sorianto voilà nu ngeen fexe fexee ba mën a maaye territoire ba yëpp. Mm-hmm. waaw xam nga liggéey bi Sëñ Tuubaa dafa liggéey bu jaayante la euh, ni ñu koy defee mooy euh, def nañ ko xam nga Nouadhibou ak Nouakchott parce que 500 kilomètres la 473 kilomètres boo ko waxee daanaka mooy 500. Euh, gis nga bi ñu koy bi ñu koy taxawal bi ñu koy taxawal dañoo déplacé ci jaayante rek la dañoo jaayante ñun ñëpp ku ne gën a dara ñu di jël suñuy oto def déplacement dem seeti ñi nga xam ne ñoo nekk Nouadhibou. ñu xool xam ne kii buñ ko tegee ñu ngi fi jaarale dina yu suñu Assane Babou ak suñu fa jàmbaar kër suñu Touba gi ñu dem daayira yoo xam ne yu am solo lañ ba ñu demee ñu jox leen liggéey bi ñu ñu koy doxal wax dëgg yàlla boobu ba léegi nag confiance bi nga xam ne moom lañ am ñun rek moom lañ am ci ñoom ñoom ñu ngi ciy dox liñ ci mën seen kam sooy raat boo demee noonu ngay fekkee yëf yi beneen dëkk boo demee itam ci euh, Nouakchott dañuy yàkkamti pour Touba Ca Kanam yegg si foofu xam loolu nag bu amee yow yaa yow mi ko jiite di am ay ay problème di am ay problème mooy faaw nga jéem a fexe ngir dëkk benn lu mu sore sori fu ne nga ba war faa dem waaye nag ba bërina la ko gàllankooroon mooy jamonoy Covid bi déplacement yombutoon ak yu demee noonu waaye ñu ngi ci programme boo xam ne daal incha allah lu mu sori sori fu nit mën a nekk ci biir Mauritanie daañu fa fexe def délégation dem fa yóbbu fa Touba ci kanam waxtaan ak ñoom. Safinatul Aman mooy moom mooy euh, kuréel jiite wàllu convoi bi ngir ñëw màggal Touba wala yeneen événement religieux yi convoi boobu noo koy déroulé. waaw euh, Safinatul Aman ñu ngi leen di nuyu baax ci njiitul président Baye Modou Gueye en tant que coordonnateur bi Ibrahima Sarr mi mu ngi nuyu waa Safinatul Aman ñëpp xam naa ne loolu moom ndax li ko gën a li li tax muy gën a metti mooy dafay takku ci nit ñi li ñu ñëwee de bari en même temps bagage yi itam day bari xam nga bagage nag bu jógee ci mu cim réew war a dugg cim réew. day am contrôle am lu ñu naan euh, dédouanement ak euh, contrôle yi day xaw a bari waaye nag ñu ngi sant baax ndax itam ñi ñu ko seqal maa ngi fay jaare di nuyu euh, DER bi nga xam ne moo nekk Ndar. Euh, directeur bi vraiment ñu ngi koy nuyu bu baax a baax a baax magal gi def na ci effort bu bu rëy. dérogation quoi parfois contrôle dañ koy wàññi wala. waaw waaw waaw parce magal Touba ak ni mu toll. Mm-hmm. bu ñu xam du daan dafa am benn xam-xam bu ñu am. Mm-hmm. bu ñu xamee dara dañuy xam ni ñu koy mën a xoolee ba gis ko. waaw professionnel loolu seen diggante seen liggéey la mënuñu koo xam ñun. Mm-hmm. waaye daal euh, jàppale gi moom ci jëm magal Touba gi dañ koy seeral sëriñ bi dañ koy seeral wax nañ ci wax nañ ci ay yoon sax. Euh, taxaw na ci taxaw boo xam ne bu doonu ko nag moom kat euh, taalibe yi mu seen am na contrôle am na contrôle na contrôle am na contrôle waaye contrôle bi yëpp itam def na ko ci woyofal ngir bañ a def loo xam ne ni bu màggal gi ñëwee taalibe yi du ñu màggal si wala boo seen ravitaillement ak dund yi ñu yor ak yenn marchandises yu ndaw yi nga xam ne dañ koy yor di ko wecceeku di ci def ci màggal gi mu euh, tardé yéen ngeen préparé terrain bi wax gars yi ñu wàññi yenn marchandise wala waaw waaw loolu moom bu amee dañuy daje hmm. ñu ne yenn marchandise yi nga xam ne day ñëw te mënuñu ko ñàkk andi dañ koy bind bu demee ci douane ñu déclaré ko bind ko ñu fayal ko douane li nga xam ne nag douane mën nañ koo may jëm ci social lu jëm ci màggal gi la ak adiya yi yooyu yëpp dañu koy bàyyi. ñiy préfetoo di indi par exemple yenn matériel pour écouler ko ñooñu bëgg rox bëgg roxaloo si biir convoi nu ngeen def ñoom. waaw da ciy am da ciy am da ciy am ñun ñi léeg-léeg ñu yëg ci dara. même douane da ci yëg da ci yëg parfois dara bu ci yëgee dara itam ah day jël ay responsabilité nag léeg-léeg day jël ay responsabilité dina ko xam douane lu bëri en général dañ koy xam ñun avant ñu ñëw bu amee sax euh, na yoo xam ne nii ñun dañ dañuy woo wax na ko mais du duñ ko mën a fësal waaye dañuy xamal ne am na ñu ren rax ñu bokkul ci yéen euh, boo ko seetloo maa ngi fàttaliku am na benn màggal boo xam ne ne xawoon naa demee noonu ba métti woon lool ci màggal googu waaye nag yi fi jaar yëpp sensibilisation yi nga xam ne jaar na fi day tax ñu wàññi situation yooyu ndax itam xam nga magal Touba moo xaw a moo xaw a rëy xaw a xéwlu suñ Touba gi itam moo tax nit ñi ñu bëri dañ naan magal gi magal gi rek daal ci daal ci dugaale euh, gars yi itam comprendre nañ ko waaye ñu ngi kii di ànd ak masla di ci ànd ak euh, yërmande sëriñ bi rek waaw ren seen convoi ñaata véhicule la woon ren jege na juróom jege na ci cinquante oto yu mag xam naa bu fekkee juum ma cinquante oto yu mag wala soixante diggante yooyu la war a tolloon yu mag mais yu ndaw yëpp doo ko mën a doo ko a xayma ndax yu ndaw yi mu ñëwee dañuy jéggi rek muy naar yi wax dëgg yàlla leen leen moom xam naa ñu ngi fiy jaare di nuyu Cheikh Mourtala Bousso dafa mel ni moom la sëriñ bi ki yoon mu dox diggante Sénégal ak Mourtani euh, am na ci taxawaay bu bu bu am solo naar yi boo yéen yëpp xam ngeen ko bu ñu gisee ren xam ne wax dëgg yàlla ni ñu ñëwee euh, bëriwut fu ñu koy dem te loolu nag euh, nangul guñ nangu Sëñ Tuubaa la xam naa mu moom la ñuy wax ne euh, moom la Sëñ tubaa am ci dëkku naar wala dëkku arab boo xam ne mm. ñëpp dañoo maase nangul ko maanaam laa sàkk fii amul benn werante doo wax kenn ci Sëñ Tuubaa du la wax wa xëyratu loolu nag loolu nag foor la ci yoonu murit waaye nag foor la itam ci sénégalais yi nekk Mauritanie ndax diggante Mauritanie Sénégal kat ah, Touba taxaw na ci taxawaay boo xam ne nii ci biir ak ci bit nag lu ñu mën a wax lu ñu mënul wax loo xam ne ñun xam nañ ci lu bari waaye nag alhamdulilah. Ibrahima Sarr di fàttali yow it yaay euh, coordonnateur ba gëm sa bopp gëm sa bopp bu Mauritanie est-ce que gëm sa bopp mi ngi dund foofu. waaw alhamdulilah xam nga gëm sa bopp Mauritanie bi mu duggee Mauritanie yàggul lool waaye fi may waxee yow euh, ni nga mën a xamee nit ñaa ngi bëgg wala bëgguñu ngay mbooloo mi di la jublu ba nga mujj samp ay cellule quartier bu ne ñu fay samp ay cellule diggante bi deux mois yi wala trois mois ci lañ xaw a taxaw ndax diggante bi euh, événement yi dafa bari hmm. boo xoolee Korité Tabaski euh, Màggal Tuuba gàmm war a ñëw loolu moo xaw a ñu xaw a tekkeral mais alhamdulilah rabbil bi nit ñi li am solo mooy ki ngay jàppale nit ñi am ci moom cofeel bëgg ko loolu day yokk loolu lu bari te wax dëgg yàlla président Bougane nit ñi am nañ ci moom cofeel ndax kitam nit ñi nit ñi dañoo bëgg leen yërëm hmm. te moom gis nañ ne mu ngi def social lu solo hmm. te doomu aadama moo mel noonu ku koy dimbali dina la yëg. loolu moo tax mu neex a jàppale. moom sax dina neex a jàppale si Mauritanie parce que <laughs> yaakaar naa ay parents am la nekkoon bu gaan si je me trompe pas euh, fa la nekkoon après événement moo Mauritanie la ñëwoon nekk rajo rajo Teranga euh, FM bu Saint-Louis ba ni muy rampe rampe tey ba taxawal mbiram foofu moom xam na ko kon neex naa jàppale Mauritanie yaakaar naa. waaw loolu lu neex naa jàppale ndax boo xoolee sénégalais yi bu dee candidat boo xam ne da nga koy jàppale ngir mu am ay électeurs wala am ay soppe. Euh, da ciy am solo ki ngay jàppale nit ñi xam ko. Mm. te Bougane euh, wax dëgg yàlla euh, bu dee woo buñ ko waxee ci ndar mm. ñëpp dañ ko xam te sénégalais yi nekk foofu bëri nañ lool waaye ñëpp koo ci wax dañuy yàkkamti sax ne lu tax Bougane moom yàggul la def lii. Mm. yàggul a ñëw pour taxaw fii ci Mourtani wax dëgg yàlla jàpp nañ ne daal incha allah buñ ci demee bu soobee yàlla dañu xam ne euh, nit ñi sopp nañ ko. bëgg moom yëg na ko ak yow ak moom wax que moom moo la fa tabb wala yaa am cofeel gi rek est-ce que yaa ak moom ah <laughs> boo ko nekkalee ci dëkk bu ngeen di déggante loolu doo am mm-hmm. li ngeen activité yi ngeen def yëpp mu di ko yëg di ko gis di la ci tontu di la jox ay conseil di waaye du te daa am yoo xam ne moo la war li la war mooy nga liggéey liggéey bu liggéey bu taxaw mu di ko gis am na itam ñoo xam ne nii moom ñoom la nekkal vraiment ñoom itam ñu ngi ñu ngi ciy jokkoo waaye moom toujours bu ñu bëggee jokkoo dañu jokkoo li ñu war a wax euh, bu ñu bëggee gisee itam mën naa sore ndax mu amul jot ku ne xam na ko man mii di wax yow amu jot ndax damaa nekk ci yeneen liggéey yor ay yeneen occupation waaye heure bu ñu bëggee gisee mën nañ joxante rendez-vous foo xam ne dañuy gisee euh, ñu waxtaan Euh, surtout lu jëm waaye nag li ci ëpp rek góorgóorlu leen ngir réew mi lay wax li ma gën a ñor mooy loolu euh, li muy wax yow rek mooy lu jëm ci réew mi lu jëm ci réew mi lu dimbali nit ñi lu tax sénégalais yi génn situation bi ñu nekk loolu nag gis naa ne xëy na mu ngi ci am ay gàllankoor ñu ngi koy bu ndox daal ci li mu taxawal yooyu yëpp gis nañ ko waaye nag yàlla moom gëmul ne la wut. kon jafe-jafe yi mu am jamono yi wala fëski bi yéen waa Mauritanie lu si seen taxawaay. Hmm, waaw xam nga dafa maa fekk fii damaa fekk fii delloo gu ñu mu tane mais incha allah bu ñu demee ñu ngi waxtaan. Hmm. xool nu ñu mën a taxaw ba jàppale ko ci donte jàppale gi moom alaa kulli haal euh, daañ ko def euh, gis naa ne doomu Sénégalais la buy góorgóorlu euh, defar réewam. ubbi ay entreprise di yor ay sénégalais yu bëri ñuy liggéey foofu loolu képp kuy doon doomu Sénégal da nga ko war a jàppale da ko war a ñeewantal da ko war a encouragé mais bu ñu def loo xam ne day tax ku bëgg na góorgóorlu sax dina découragé loolu moom yaakaar naa ne baaxul ci teyit euh, ñu xam ne nguur nguur gu nguur yàlla day jeex teyit képp ku fi nekk suba da fi jógee keneen ñëw fi am na ñu fi nekkoon hmm, président Abdoulaye Wade ñu ngi koy ñaanal mu yàgg na fi nekkoon na fi am na président Macky Sall mi allah kulli dafiy jógee waaye nag nañ fexe ñu am net bu rafet wala ñu xool bu wala boo xoolee nit ki doo rus loolu loolu loolu am na ci solo boo loolu